الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام على من اتبع الرسول وآمن بالله وباليوم الآخر ومن اتصف بصفاته من التابعين إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñi ngi nuyu mbolo mi fu teew ñep di rafetlu ndaje mi ak li waral ndaje mi waaye nag jiital ci nuyu bi ak ñaan yi Cheikh mohammed muntaha ñaan sunu borom doliko fe bayyi ba li yene ci yone yonu mamam bi mu def ci lu kawe njortam di ñaanal tamit mam Amdi Modou benda khalifa mam Cheikh ibrahim di ñaan moom it suñu borom dolli ko fee bàyyi ba li mu yéene ci yoonu Cheikh Ibrahima mu rëcc lu kawe am mbégte bu baax ci wuy si ñu wuy si ci li woote muy delloo njëkkal Cheikh Ibra loolu nag ñu baax ñëpp la war ñu baax ñëpp war nañoo delloo njëkkal Cheikh Ibra waaye nag jaare ko ci lu am solo muy baatub laa ilaaha illallah xéd wu né amna luñu lu mu leen di xàmmee ñii mën nañ leen a ci ak tol ñii ñu xàmmee leen ci lenen waye liñ xamé keur Cheikh ibrahim nak moy bat laa ilaaha illallaah xamné foko tuddé ko fu way nek def sénégalais sa xel dañ bi Cheikh Ibrahima loolu nag mandarga mënu ko gëna rafet té so gisé bay Fall yi fuñ tollu seen ngëm di bees waxtu wu ne te du magat mukk da am hadis bo xam yunus sallam da ko xon ci sahaba yi ndax dafa jekkoon jek toog ñom ba yag muy len jaddidu imaanakum yeesal len seen ngeum ñom sahaba yi da di wax ni ya rasulullah kayfa nu jaddidu imanana naka la yeesal suñu ngeum mu ni len akthiru min xawli la ilaha illallah di len baril di tuddu la ilaha illallah te bi Serigne Touba di jël engagement yi boppam di wax ni moo gën a màgg ci lu am murid def booba yoonu murid taxawagul ndax bi bind Masaalikul naan booba Maamoor Anta Sali mi ngi fi ba jàngal na ko lenn ci ay doomam te Maamoor nekk na fi ba jóge fi ba dund ba Serigne Touba dund at ak genn wàll yor daara ja yoonu murid doo taxaw kon bi sëñ bi naan am dawaa mu zikri fa ak akbaru min kulli ma kaanal murid yu ko tudd yàlla moo gën a moo gën a màgg ci lu am murid def booba nag daa mel ni koy wax xamoon na ne bis bi dina am ndax dani xad xultu zalika bila israari wala ubali bi tawe inkaari lii wax naa ko ci ci ci loo xam ne béraluma ko kaw laa ko wax te yow may wedd nag dima laaj ne ma li nga wax foo ko teg c'est bon nga xam ni ragaluma weddi ndax wa kullu man sa'alani fali jawaab xam wala rajo kitaab kuma laaj ni mo lu tax li ngay wax foko tek man la jangal la njëkk wala rajo am na kitaab te loolu wala zikrullah akbar wala allah ma tasnaun kon lolu mom lu leer nañ la tuddu tudd baat bi nak nga xamni moy moy la ilaha illallah nee wa annahu bidayatul wilaya wilaya go gis lu mag mag mag xamal ne ab kayam moy la ilaha illallah bañ ko tuddit moy nihayatul khawaya mbewto goo gi goo gis def ko wala askan wo gis ñu bew mbetteel ga rëyut ba àgg ci bañ a laa ilaaha illallaah moo tax loolu am kon loolu nag na ko lu mat a xam la baatub laa ilaaha illallaah nag jëmmal ko ak kennal màgg ko sunu borom gi loolu moo taxu a jóg Seex Ibra moo ko taxoon a bàyyi ay bokkam ndax ci biir waay ba sëñ mi ngi naan fa mën a yori de kas fal lesi tadamana yu taliqi dunya talaaxan bayina képp ko xamni da nga bëgg ñu lembutum la ilaha illallah nak da ngay fassé aduna bayyi say mbokk bayyi sa bop dem fété ak yalla dem xol sëriñ bo xamni bil musafaha da nga jakkaraw ak ak def ni Cheikh Ibrahima Fall defoon mooy bàyyi say mbokk ñew ni lam inni lam yuxruj ñi min bayti ila talabu shaykhin wasil dara taxuma bayyi sama kër lumay sét kilifa guma ma àggale kon xamna ni yalla mu ne su jot ñak ag mu taxoon nak Cheikh ibrahim ñëw bëgg kumpaam dañ ci loolu ndax nit ñi kan ñu ci bari ci kumpa lañu dund ba tay ji waye kumpa nak dañ sa digënde sa sa borom xamni suñu borom bind na ay malaika bind na ay jinne amna na loolu dafa bind na àjjana bind sawara loolu nak képp ko xamni fasé nga aduna bëgg sa bëtt tege ci loola Cheikh ibrahim mo wane né loolu mëna nek ndax ci loolu la nekkon yar ci ña ña ña ña ña nga xam ne ñoom ñoo ko toppoon loolu kon ba léegi nii lu mën a nekk la ma bëgg nag ci réew mi am na ñoo xam ne ñii ay ustaas lañuy jàngale ñii ay imaam lañ lépp loo xam ne xew na ci biir semaine bi suñu taxawee def xutba danañ ci dana taxaw def ci jàngat kon jàpp naa ne 24 heures bii nga xam ne ci lañu tudd ci lañu ci la sëñ Muntaxa woote ngir ñuy wax laa ilaaha illallah di ko tudd yàlla loolu mosut am ci àdduna kon jàpp naa ne képp kuy kuy wër actualité actualité moom mi ngi nii loolu ñi nga xam ne lépp lu xew ci semaine bi dana ci waxtaan loolu ñu ngi leen ci xaar ba xam ñoom ñu nu ñu def ak bii ndax lii ba àdduna sosoo ba tey musu am te dootu am ndax ku mel ne Seydou Fall mënutu am ku mel ne Serigne Touba waxi noppi kon li sëñ bi li ma waxoon ni tayam ju ne day gàcceel démbam kon bis bi ci loolu la bokk. waaye ñi nga xam ne daal ay waxkat lañ dëkk ci réew mii di jàngalekat di ay oustaz wala ñu ay imam lu xew ñu taxaw wax ca ñu ngi leen diglu ci 24 heures bi ba xam ba xam ñoom nuñ ko jàngate ñoom kon dañuy gàttal kàddu yi rek sëñ sañ sëñ Aliou Badara doon doon doon barkeel lool rek di sant tey gërëm di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha suñu borom doolu ko fee bàyyi ndax lii moom moom wërsëgu ko yàlla wërsëgale la. ndax delloo njukkal Seex Ibra nag loolu ñëpp la war la war sëñ bi woote woon ni nañ wax leneen lu bokku teg lii nii lañ koy defee waaw ndax bëgg gis Seex Ibra bëgg ak waa këram du bëgg goo xam ne bëggum dof la bëgg gu ànd gu ku xam la ndax bëgg moom su àndee xam rek soo jëfee daal di am bul gis nag mu weñ wu dee cim soow ba nga jàpp ne leen ko rey ak bëgg ma ko rey waaye daa xamut kon bëgg su àndee ko xam borom su wutee rek dana am